nañu muñ rek lépp dina baax incha allah merci. léegi ma allez léegi par rapport ak tey jataay bi parce que dafa mel ni say staff wala ñi la mm-hmm. dafa am lu ñu bëgg ci yow ça veut dire que combat lañ bëgg pour man su ma déggee seen wax. daa mel ni mm-hmm. dañoo bëgg laa dëgg de wàcc ci arène bi 2023 incha allah rabbi bëri. combat royal. combat royal sax na. Mm-hmm. voilà. waaw noonu la noonu la sëñ Babacar xam nga tey boo nekk ak say nit. maanaam sa encadrement sa staff bi nga xam ñoom ñoo la yor. tey boo nekkee sportif boo xamante ni tey c'est lépp moom mooy bëre kon donc ñoom fu ñu toll dañuy xeex pour yow nga am combat parce que c'est pas normal yow ñu toog maanaam di 4 avril bi passé lañ mujjee bëre. 2021 ba léegi mënoo fexe ba am combat kon donc yaa am problème problème moom mooy lan loolu lañ toog waxtaan suñu biir pour def lii nga xamante ne moom mooy. jaarale waxtaan bi pour xool nu ñuy def ba am combat mm-hmm. waaw. problème bi lan la la royal l'instant bi nii moo royal boobu doon. waaw loolu il faut mu sax ci nopp gars yi. mais problème problème bi lan la. waaw problème bi ragal la rek. ragal la man noonu laa ko mën a gisee quoi. Mhm. parce que boo xoolee tey mbëri buñ demee ba ci biir bu ki ci war a bëreeg la de guerre de moom war a la kii ñii war a ñëw jël seen revanche ñii war a ñëw ñu laale ñun ak ñoom yaa ngi dégg tey bu fekkee dem nañ ba loolu amul rek dafa am lu muy ndur mooy ragal bi ñuy teg. Mhm. te pour man làmb la dañoo war a ñëw bëre. surtout royal bi nga xam ne gars yi ñu ngi koy coow war nañ a bokk yaa ngi suñu samay morom rek ñoo ko bëre. bu dee combat royal ku xam ne roi bi hmm. naa ko yàggul dara man ko lak combat bi. moo ko teree nelaw couronne bi moo ko teree nelaw combat royal la bëgg ku bëgg a bëre combat royal nga ko mën a bëre pour l'instant. mais moom combat boobu d'accord ci. ma juum seetaan nga ko wala ñenn ci sa staff seetaan nañ ko nee na yow moom xaar parce que mu bëre yow deux fois dem. ci troisième confrontation bu koo xamante ne moom mooy loolu nga xaar ñoom franc daal ma essence. waaw wax googu moom sax dégg naa ko sax moom dégg naa ko c'est pas question de samay samay staff dégg mais loolu du wax. loolu moom loolu moom vraiment loolu du wax parce que mënu ma man bëri naa ma seen trois na ñetti yoon maag moom maag ma donc moom normalement ci gàttal rek war na ñoo mën a bëri une troisième fois. mais foo pas que ñu taxaw ne waaw nañ jël may booy sax man maa ngi maye essence hmm, soxoruma ndax maye naa mayewaat mm-hmm. kon donc moom pour pourquoi pas waruñu mën a laala ñetti yoon comme ni ma ko defee gàmm seen kon donc am na luy kolos ci suuf maanaam moom ci boppam am na loo xam ne mu ngi koy dute ci laaj de Guiers. ñemewul nga bëgg a wax. c'est pas question dañuy wax ne nit ki ñemewul parce que bu ñu duggee bu ñu bu ñu duggee ba ci biir bu ñu xuusee ba ci biir ragal da ciy bokk. Ah, kon ñemewul ah. mooy bu ñu xuusee ba ci biir maanaam ragal da ciy bokk. am na lu xew loo xamante ne ragal na ko ci Lac de Guiers. moom mais moom lan la war a ragal koo xamante ne ngeen deux fois. waaw ah liñ gis yëpp seen deux combats yëpp daf la dominer. léegi lan la war a ragal ci ci yow. non pour l'instant. non lan moo soppeeku ci diggante bi. non non non moom du question ne moom ci boppam am na lu war a soppeeku ci diggante moom xam na. xam nga ñun mbëri ñun xamante ne suñu biir. peut-être staff bi duñ ci comprendre dara mais mbër bi ak mbër bi buñ jotee laale ñoom ñaar. kenn ku ne da xam sa morom li muy saf. Mm-hmm. léegi ci biir loolu nag boo xamee Lac de Guiers mii am na lu muy saf dangay def recul. Mm-hmm. recul boobu lay nekk di def nii mais dinañ waxtaan màngu te su ma la ko waxee rek takku di incha allah incha allah beneen bi financièrement bi euh, il ba wax ku xam mbër xam ni li ko jege dafa bari. dafa métti dafa diis. Mhm. mais à chaque fois damay dégg ci yéen boo leen waxee ñu ne nit ñu baax ni mais est ce que il est jotul ngeen am benn organisation boo xam ne. Mhm. cachet yi ngeen di am di ngeen ko mën a investir fenn. ba bu combaaraaree. bu leen gëj a bëri comme nga gëj loolu di doon appui ci yéen ci financièrement. Mhm. est ce que léegi noonu koy xalaat. si loolu ñu ngi ci xalaat bu baax a baax mais xam nga mbër moom. am na loo xamante ne euh, tey mbër benn dafa social. Euh, ñaareel bi si toppaat moom mooy tey boo xoolee tey mbër buggul nekk sax di wax ci ay ay ay ay li muy investir ak yooyu noonu parce que lu bëri da koy nëbb. dégg nga ko ah lu bëri mbër bu koy def rek da ko da ciy da ciy ciy nëbbatu parce que ca dafa gaaw. am bi cat dafa sew. Hmm. ba tax na tey suñu nit di baax ñu ngi ñuy dooleel. dëgg la mais léeg li ci bis lu ci suuf nag loolu dinañ koy ñu ngi koy liggéey ci suuf bu baax a baax a baax. jaajëf kontaan nañ ci yow. prochaine commande ak daal xaaral def na xalima ñoo ànd xalima euh, ok alors euh, combat yi nga xam ni bëgg na ko en tout cas muy combat royal. yi mm. nga xam ni moo ci jàpp ni moom la ñu jàpp moo gën a jàmp. Mm-hmm. mooy sa diggante ak Modou Lo. et que ci Modou ci côté supporter wala staffam li nga xam ni moom la ñuy reproché mooy da nga nekk mbër moo jëloo jël si est-ce que tey jii nii devant les caméras di nga jàkkaarloo ak Modou Lo sa combat bu jëlee sa combat di ko di ko duma di nga daan. ok dégg baax li nga wax nee nga sama combat ak Modou man maay dem def lépp hmm. ci gàttal na nga ko bëgg a waxee mais pour qua man ma war a dem defi lépp lu tax moom mënul ñëw ñu daje. mu saf sap. mais ñoom li ñuy rasu ci làmb la bokk loolu la gars yi xamul. il faut ñu xam ne ne tey Modou ba ma ko sama combat moom ba mu bi passé ba ma ko dawee jël lu mu def bu rasul day daanu. bu rasuloon woon day daanu. dafa rasu ba génn ginnaaw raay. <laughs> ah mais rasu ci lamb la bokk. faut wu ci rasu rasu rasu rasu moom boo ko fi nga taxaw ni ba ma doon jéem a plaqué da ngay arrière ba génn loolu ci rasu la. rasu lamb la bokk il faut gars yi comprendre loolu. yaa ngi dégg bu ñu bëri en tout cas daal naa la promettre leen ci kàttanu yàlla. une troisième fois di nga gis chute te géej waaye danañ am mbég boobu boobaa incha allah. jërëjëf. bon li may tàggatoo leen la rek di leen santaat bu baax a baax yéen presse bi ah. di sant di leen sant di leen gërëm. waaw di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm. Balla Gaye ndër na ci tànku Boy Niang. Hmm. yow boo fa nekkoon nan lay demee loolu mun na la si ba Boy Niang mun na la si daal ne cirib tànkam. ma ne cirib tànk Boy jël tànkam. waaw waaw loolu moom dañuy bàyyi ba mu jël tànkam <laughs> mais nii nii nii nii nii. Hmm. defet moo ñëw ak lu gis nga bëre dama leen jox benn exemple bëre ak loo ko mën mën mën mën mën mën mën ak bu ko mën laala de hmm. bu yàlla nee tey boo nee coppet tànk yi hmm. day dindi xam-xam bi lépp doo xam sax loo ciy liggéey bu yàlla nee waaw waaw la da ngay xam noo koy daane da ngay xam noo koy dëjee mais boobu yàlla moo àndul ak moom moo tax ba mu ne coppoo tànkam par force du xam fu mu jël parce que boobu yàlla àndul moom. nu mu bëree d'accord na si. ni mu bëree noonu loolu du waxu fii nag loolu il faut ma toog ak moom ma waxtaan ak moom waaw mais képp ku xam Balla Gaye Balla Gaye ñëw mu normal mu ñëw laa wax mu normal daal hmm. Balla bu jëlee sa tànk moom xam nga leneen la ñuy wax mais boo ñëw rek ñëwoo. fonctionné wul. non déggoo ma la boo ñëwul la ñëwoo waaw. est-ce que toog mën na amaat waxtaan Guédiawaye nekk benn bër bu am combat comme ñu ngeen jëmee ci le cinq mars. Mm-hmm. ñu gis Balla Gaye 2 ci contact gu Sa gis Lac de gis guy Gui gis ñeneen ak ñeneen est-ce que loolu mën na nekk wala Lac de Guiers ak staff est que bari nañ pour dox loolu. waaw mais loolu benn la. non pas la parce na loo xamante ne gisuñu ko. asu bu bu yàq maa ngi ñëw maa ngi ñëw. waaw am na loo xam ko. est ce nañ ko gis. ci le fii le 5 mars. waaw maa ngi ñëw. Hmm. man su ma la waxee kay da nga da nga kii bu tëggee da nga xaar mu daaneel. ah perte na kii. ah waaw ok xam nga tey lépp loo gis waxtaan la. mooy li may faral di wax rek man sama commune sama sama diggante ak Balla du ci média lay toog di ko di ko wax parce que loolu concerné wul kenn man ak moom la lépp lu ma war a ak moom moom dina ko dégg mais du ma toog ci média bi naan lii ak lii ak lii ak dañoo war a toog dañoo war a waxtaan non concerne wul kenn loolu man ak moom la te dinañ ci toog waxtaan ci su ma la ko waxee rek taxalee mu tere na seen xel daal incha allah bu neexee yàlla dinañ ci waxtaan. xel xel seen supporter kay. waaw <laughs> yow yaa posé question boo koy xelu ah. supporter yi boo tax. Ah. benn question la am. Ah. Euh, wax ci béy boobu dañuy man mun ma laa laaj question mais question bi ma lay laaj mooy. Lac tey li nga xam mooy autorité yi géejawaay ak yi nekk nga xam ñoom nank géejawaay li ci gannaaw moom passé na. li ci kanam lañu wax. ban réaction ngay def ci ñoom porte à porte seen kanam ba ñu gën la man bàyyiwaat xel que xam ni mbaam daa gàtt waaye jur gi la bokk. te mm. njabootu géejawaay nga bokk. nan ngay toje soo bopp jënax yow ba ñoom ñëpp ñu defaat rassemblement mm. ba sa gannaaw waaw Père dégg naa li wax li nga wax rafet na trop parce que tey bu mënee autorité géejuwaay yëpp ñu topp ci ginnaaw Lac de Guiers 2 kon fàtt naa samay rakk autorité géejuwaay ne ñëpp topp ci ginnaaw ñëpp mm. ñu xam na ñoom buñ fi toogee tey ñun la mm. ñoom buñ fi toogee ñun la comme dañ leen di ñaan ñun niñ fi nekkee ñuy dooleel Balla Gaye dooleel Lac de Guiers Sa Thiès de keneen ak keneen ainsi de suite ñun ñëpp benn lañ nañ jàppale mbëri ndaw yi sax bu ñu yem fenn kefe nañ jàppale ñëpp dañu xam ne ñoom fi ñu toog ñun ñoo fa teg waaw. question boobu bëggoon wala ginnaaw suba. Mm-hmm. dañ xar <coughs> mbaw. Mm-hmm. xaaj euh, xaadim mi. Mm-hmm. ak euh, Dof. El Kay Tons. Assane. Mara. ci lañ nekk. dañ dugg porte à porte. loolu rek laa mën a dégg euh, est-ce que seen tëju waxtaan mu mu mu faju wéru daa mel ni ñëw. Ah. est-ce que seen dëgg waxtaan parce que ku la xam-xam ni jege nga baal la trop te déggal na que seen dëgg waxtaan loolu dina ci bokk. waaw mais du lu ñuy wax fii.